say origine fan la maa ngi dëkk fi ñuy wax Vélingara Ferlo ci biir région bu maatam mais à l'époque Vélingara Jolof la tuddoon nekkoon ci biir région du Louga département bu Linguère arrondissement de ci bii euh, découpage région de Matam amee 2002 ñu rattaché ñu ci département bu Ranérou Vélingara nekk arrondissement ci biir département bu Ranérou mhm. mais foofu mooy suma origine foofu laa juddu suma papa tudd El Hadj Dembourou Lella Sow comme ni nga koy déggee Demba Lella Sow Lella mais Dembourou bi turu maamam la mais moo gën a siiw mais El Hadj Demba Lella Sow la tudd alors que moom ngay dégg ñu naan Aliou Dembourou Sow suma yaay tudd Awa Sow ma juddu 1976 foofu ci biir Vélingara mhm. fa jànge jàngee daara donte ne ah, soriwul ci jaar naa daara euh, mais nag daara bi méttiwul noonu parce que mhm. man suñu kër dafa amoon daara mais man bi may juddu euh, euh, fekkewuma daara jooju dañ ma joxoon benn naar mhm. borom bitig da doon jàngale alxuraan ci biir dëkk bi fa laa doon jànge am fa tuuti xamem lu ma fa jëlee nekkoon jàng naa école aussi doonte ne bi ma waree def en ci la màng topp jur gi dem fan nga yam fan nga yam si jàng <laughs> non euh, bayal ma denceg rek <laughs> est-ce que yow euh, ah CM2 way nee naa la awma en tranche kay jeen <laughs> eh. mm. naa ko nag maa ngi ñaan euh, muy Habib Thiobaante bu nekk département bu Linguère ci commune bu Linguère mm-hmm. Mm-hmm. donc fa laa dalee école alors euh, entrée en sixième bi moom àggale woon bàyyi ko foofu rek léegi bi nga bàyyee entrée en nga def bi nga euh, que euh, en réalité lii gën a yokk bàyyi jàng bi mm-hmm. xam nga rek problème màng ak yooyu mais boobu aussi suma mag suma papa comme am naa ah, macha allah ay mag mais may caatu suma pap maay caatu suma yaay. Mm-hmm. et suma pap nee naa la moo njëkk nekk PCR bu Vélingara faire la première réforme. Mm-hmm. nekk fa ba bàyyi donc moom moo fa nekkoon donc nag nekkoon en ancien combattant nekkoon xarit ci président Senghor bokkoon ak moom benn cellule en Allemagne. sa papa sa papa ki ma jur. Mm-hmm. donc nag eh, comme demoon na ba mag buy dem feyeegu Linguère man maa koy yóbbu maa koy indiwaat. yooyu yëpp dafa fekk dafa bokk ci li tax ma teel koo jege parce que man maa ko doon doxal lu bari. Hmm. man la doon yónni maa doon toppatoo gan yi maa doon ataaya maa doon def lépp alors ko mënatuma ko woon sori bañ na ko ba def ma loon lal bu ndaw ci biir néegam laa doon fanaan bu ñu yeewoo 6 heures 5 heures du matin 6 heures du matin mu yee ma ñu julli fajar ba pare. jox ma li nga xam ne moo jëm ci kër gi comme kër gi da doon bari ay gan ma mhm. mu xëy di toppatoo yooyu moo yokk mënatu woon jàng hmm, macha allah